am fu sa mhm. naataangoo nekk mhm. am fu mu tegoon loxoom nga ñëw yokk ci mhm. indi ci ay mën a continuer euh, ay waxtaana xam luñ ma wax leur profil bu ñu mënoon a jox ne la yaru na xam na liggéeyam ba pare nekk koo xam ne dafa jege ñi nga xam ne ñooy euh, troupe yi ñii di policier yi ku mën a doon ñoom ñëpp ci li ñu wax unanimité li ñu lay wax en tout cas grande majorité mm-hmm. c'était par rapport ak li ñu li ñu bëgg pour police am ko mm-hmm. euh, c'est déjà donc une bonne chose mu am mm-hmm. benn réparation boo xam dénk administration pénitentiaire na kii diw exilé na diw bëgg ci ngawte ngawte di ko coow mais mu def loo xamee ni. Mhm. ña nekk ci biir corps bi ña ngi koy rafetlu parce que mhm. boo wax loolu lañ lay wax mais Aliou Ciss bi ñu jënk administration pénitentiaire mhm. comme euh, euh, euh, le l'inspecteur général bi ñu dénk wàllu police mais dugal ci seeni corps nga laaj lan lañ njëkk ko wax à partir de là tu de te ba tu peux tu peux fonder argumentaire par rapport ak ñoom seen liggéey administration pénitentiaire ba muy doon administration pénitentiaire ba léegi ay militaire a koy jiite ay colonne ay ay gendarme euh, maa ngi nuyu ku ci ni euh, le général Daouda Diop euh, ay magistrat maanaam ñu bokkul ci seen administration ñu bokkul ci garde pénitentiaire wala ñu génnee ñoom ñoo leen doon jiite ñu jox leen ko xam ci ñoom la doon koo xam ne dafa gravir les échelons ba tey jiite lii de administration pénitentiaire te administration pénitentiaire mais am na de lu ñu ay agents yi élément pénitentiaire d'intervention ay élite lañu boo ko jëlee da ngay mel GIGN wala nga jël BIP wala nga jël Garci ce sont te ñoom ñoo xam ci la fa liggéey donc ce sont des nominations comme je le dis c'est président qui nomme ku mu nomme ñoom mooy seen seen liggéey mais on ne fait que peut-être soññ ñi nga xam ne ñoom lañ la liggéey pour qu'il euh, ñu ñu ñoŋal tamit euh, surtout euh, liggéey bi parce que police tey am na liggéey bu bari ni ko gendarmerie amee liggéeyam mooy lan fexe sécuriser les populations de plus en plus mais surtout fexe ba am na benn journal bi wax sur la drogue et cetera ñu xar seen tànk tubéy ànd ci ak ñu ñu ci war a àndal parce que gendarmerie y a des brigades mixtes aujourd'hui Euh, police des forêts ñuy àndandoo ministère de l'environnement pour xeex yenn yi nga xamee ni dafay euh, lor askan wi donc ku ci nekk ci ñoom am nga ci liggéey. d'accord beneen point bi Baye Ablaye ba tey ci conseil des ministres bi la. Euh,